dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa professeur Moussa Seydi moom nag daan na yëkkate ay kàddu wax ne fa nga xamante ni nag fa la ñu jëm maanaam mooy confinement total ndax nag mbir mi am na foo xamante ni bu fa tollee maanaam dafay fekk bëy daal di way mbuus yéenekaay groupe Promo Consulting bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des daal jamono ji li xeeñ neexul benn yoon moom professeur Moussa Seydi ne kaay bu ñu ko seetaanee nag am na foo xamante ni bu fa yeggee foofee njombe gu rëy lay daal di jur te nag rawatina li nga xamante ni maanaam mooy cas communautaire yi ñi nga xamante ni dañoo amee jàngoro ji te xamuñu kan moo leen ko daal di wàll yéen a kaay la turbine moom mu xëy di ñu xamal naan ñu professeur Moussa Seydi jamono ji nag moom kaful benn yoona ndax nag nee na solution bi ngir nag moytu lawuk jàngoro jii di coronavirus maanaam moom mooy confinement total yéen a kaay gii di les échos ba tey ñu fekk fa professeur Moussa Seydi moom nag daat nay wax ne li nga xamante ni daal maanaam mooy kaay bu yokkee bu boobaa nag nag Sénégal dootul am ay moyen maanaam ay jumtukaay ngir nag mën a nag jublu ci mbir mi yéen kaay gii di Libération mu ñu xamal naan ñu ndakaaru nag moom jamono ji mbir yi nee na fi coobay maanaam ñi nga xam ne ñoo amee coronavirus jamono ji Dakar la ñu ëppee ndax nag ci samedi jeeg dimanche ji rek lu toll si ñaar fukki nit daan nañu ko fi am te Dakar sax am na nag ab transmission communautaire maanaam am na ku ko fi amee koo xam ne ki ko ko wàll kenn xamul jamono ji kan la yéen kaay gii di Vox Populi mu nit ñoo xam ne amee nañu coronavirus ba tey ci biir yéene kaay gii di direct news mu ñu xamal nañu nag lu jëm ci wàllum jàngoroy coronavirus ji jamono ji na ngir senegal jël ci ay matukaayam am na loo xamante ni maanaam mënatul ñàkk li nga xamante ni mooy caisse noire yi maanaam ñu génne xaalis ba nga xamante ni nag maanaam moo fa nekk te nag bàyyi discours yi nga xamante ni jamono ji moom lañ nekkee ci réew mi maanaam discours yi ci boppam moo war a daal di jeex te ñu def fulla ak fayda présidence de la république maanaam caisse noire googee dañu ko war daal di assemblée national jël caisse noire ga dem au conseil des collectivités territoriales jël caisse noire ga dem conseil économique social environnemental jël caisse noire ga maanaam institution yi yëpp seen caisse noire yi maanaam xaalis ba nga xamante ni moo fa tëdd dañ ko war a nag daal di jël dugal ko ci askan wi journal bi ba tey mu ñu xamal naan ñu opposition bi nga xamante ni ñoom ay milliards dajale woon nañ ko ngir seenu campagne jamono ji benn mille francs sax mënuñu ko génne ngir nag sauver seenu askana loolu nag lu doy waar a kaay gi du l'observateur l'observateur mu ñuy xamal na ñu en tout cas daal ñi nga xamante ni ñooy spécialiste yi ñoom jamono ji tiit nañ tiit nañ bu baax a baax ci Sénégal ndax nag nee nañ lu toll ci fukki fan rek téeméer boo jël mbir mi yokk na lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróoma maanaam 75 pour cent te loole nag jamono ji ma ngi waaj a jéggi dayoo yéen kaay gi ba tey ñu fekk fa professeur Seydi moom ne na li ma leen wax rek confinement total fa la ñu daal di jëm ak askan wi yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal na ñu samedi bi ak dimanche bi lu toll si ñaar fukk ak ñett ci ay cas am na ci Sénégal yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lañu nag am na lu toll si ñaar fukk ak juróom ñaar yoo xamante ni daat nañuy wér jamono ji téeméer ak fukk ak juróom yoo xamante ni maanaam ñoo ngi leen di faj jamono ji jot na sëkk nag ñu daal di jaajëfal ñi nga xamante ni nag maanaam ñoo ñooy médecin yi yéen kaay gii di libération ñu fekk fa nag koo xam ne moom ab faux docteur la di Amadou Samba journal bi nag nee na moom mii daal da doon def ay test corona am na sax kuy liggéeyee caisse des dépôts et koo xam ne jot na ko koo defal moom si ay toppaleeki ca caaxaan rek ndeke si la yëngu ndekete yoo sax moom ci APR la bokk bokk ca cadre ya ordre des ñoom nag daal nañuy porter plainte ngóor sii ba tey ci biir yéen ak ay groupe ma consulting bi ñu fekk fa Guy Marius moom nag la mu xam xamlee daat nay wax ay dëggam nee na jamono ji conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales maanaam dañu koo war a daal di tas ci ni mu gën a gaawee yéen kaay gii du suur su am mu ñu xamal ñu am na benn waay boo xamante ni moom dafa amee jàngoroy coronavirus waaye nag am na ay région yoo xam xam ne dañu ko doon daw ba maara day taal bu Diourbel ak Fatick ak Kédougou ndax nag ki nga xamante ni mooy docteur Mamadou Diop bi nga xamante nag moo nekk Kédougou moom bi ñu ko waxee la mu xamle daal nee na moom bu ñu ko jëlee mënuñu ko boole ci cas yi Kédougou am bu dee nag docteur Mamadou Dieng bi nga xam ne moo nekk Touba moom dafa wax ne Touba nag jamono jii am na lu ko doy sëkk ndax fukk ak juróom-ñaar ñoo ngi fi di faju bu dee nag ñi nga xamante ni maanaam ñooy waa Fatick gouverneur ba moom la mu xamle mooy Fatick amagut kenn ko fi amee jàngoroy coronavirus kon kooku nan la ñu ko fii ëndee boobee source a mu ñu xamal lan ñu waa ji daal maanaam région bu Diourbel ak bu Fatick ak Kédougou kenn ku nekk dafa lànk kandaare maanaam bañ koo jël daal di kay faj yéen a kaay gii di mu ñu xamal lan ñu nag ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoroy coronavirus am na si ñenn ñoo xamante ni jamono ji nag ñoo ngi sonn sonn sonn ba maara day taal yi ñoom nag daat nañuy wax nee nañ sax ñoo ngi interpellé nag ki nga xam ne mooy Macky Sall ak Abdoulaye Diouf Sarr ndax ni nga xamante ni moom lañ leen di taxawoo dara baaxul ci maanaam lekk gi ñu leen di andil day yéex a ñëw teg si lekk gi bu ñëwee tàng de waaye lekk gi day sedd guyu teg si nag chambre yi nga xamante ni moom fa la ñu nekk amul télévision maanaam nag amul climatiseur ñoom nee nañu nag jamono ji bu dee kenn maanaam déewul du médecin yi de waaye nag yàlla sunu borom la ñoom sax ñenn si ñoom daat nañuy wax ne jamono ji sax dafa mel ni ñi nga xam ne ñooy fajkat yi dañ ñoo ragal ñun ñi nga xam ne ñoo amee jàngoroy coronavirus du suñuy kàddu dañuy nettali ma ci yéen kaay gii de Les Échos yéen ne jàngoroy coronavirus maanaam daa di laal bant am na nag ak njaboot goo xamante ni ñoom dañu leen a quarantaine noonu daat nañ leen di bàyyi am na juróom ñoo xamante ni daat nañ fay wér yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu lu jëm ci wàllum couvre-feu bi Cheikh na Cheikh Sadibou Keita moom nag la mu xamle nee na policiers yi nga xamante ni daal ñooy dóore loole nag am na lu leen a fekk ni ay daana te jamono ji Sénégal dafa tollul foo xamante ni maanaam lu neex waaye daa di def yéen kaay gii di la turbine lu jëm ci wàllum maanaam ndimbal li nga xamante ni njiit mi daal na koy wax nag nee na nañu def ndànk nañu def ndànk ndax Sénégal am na ñoo xamante ni lu ñëw rek maanaam ñu profito fa maanaam def si ay njublang def ci ay looxor dëbb li njaa maanaam ndimbal li na egg fa nga xamante ni maanaam ña nga xamante ni maanaam ñoo ko yittewoo ba tey ci biir journal bi di Walf Fadjri ñu fekk fa ma di ñaa la xam le nee na loi bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum loi d'habitation dañu ko war a votel Macky Sall ci ni mu gën a gaawee yéene kaay gii di réew mi ko dëjee xëy na nag di ñu wax li nga xamante ni moo nekk ci texte bi Macky Sall jébbal waa assemblée nationale laas yéene kaay mu ñu xamalaan ñu nguurug Sénégal daat nay génne lu toll si ñett ñett ci ay milliards ngir nag jëndee ko ay respirateur enquête yéen kaay mu ñu xamalal ñu Aïda Ndoye Dione moom nag mooy sénégalaise bi njëkk a faatu ci lu jëm ci mbirum jàngoroy coronavirus ca diwaanu Espagne yéen kaay gi ba tey mu dikk ci wàllum football mu ñu xamalal ñu waa Real Madrid jamono ji nag maanaam dañuy hésité diggante Sadio Mané ak Alan bu Dortmund journal bi di las mu ñu xamalal ñu Alan kay jamono ji boo muy tuulee mooy baara Sadio Mané ngir mu dem Real mu ñu xamal naa ñu waa Paris Saint-Germain ñoom ji nag Kalidou tere nelaw ab contrat boo xam ne juróomi at la ñu ko bëgg a rëddal teg si nag juróom benn ci ay milliards yoo xam ne salaire lañ ko kay daal di faya